jërëjëf yéen a ngi déglu wala seetaan li nga xamante ne mooy Chronicle tey nag ñu ngi fii sa KG5 mini stadium mu doon béréb bu mag pour suñ gan tey mooy Lamine Owens euh, Lamine Owens nag ku ko gisut dégg nga ko si Gambian football moom la ñëw seet si te jii waxtaanam moom si ay mbir yu bëri waaye li si gën a fës mooy carrière am fu mu dooree ak jaloore yi nga xamante ne def na ko si Gambian football. Euh, dinañ si waxtaan fii si Chronicle ñu ngi leen nuyu Mr Owens. waaw ah, ñu ngi leen nuyu bu baax maa ngi leen di gërëm si invitation bi ngeen ma may nii pour ma waxtaan ak yéen si affaire footballu Gambia ak fi ma jaar si football. jërëjëf maa ngi leen di gërëm bu baax a baax te. ñi ñuy seetaan tam ñi ñuy déglu tam xam nan moo bu baax ak ma def ci dëkk bi. waaw dinañ si ñëw si kanam tuuti euh, ndaxte euh, jaloore bi rëy na ñu bëri ñoo ko seede euh, waaye nañ commencé fan la tàmbalee kañ nga dugg si football. dugg naa si football time Kouame. Kwame football club boobu rek a nekkoon Serekunda bi ma ñëwee nag maa ngi doon playantu ak suma naataango yi ak suma waa gox bu Serekunda. ban at la woon. Ah, ay seventy four seventy five ñooy ñëwee nag ah, ma ñëw gis Kwame seetaan naa leen before ma dugg fa dama wàcc team bi. seet after ah, bi mu leen gisee ñuy play nag suma brother tam fa la nekkoon ki ma yar moom ma adopt Daddy Owens moom ñoo bokk di seen mooda after moom dafa mujjee génn àdduna moom moo ma dugal si football ma bokk si Kwame yi di def daan ànd ak ñoom Oji Diallo ñoom Baboucar ñoo ñoo amee woon Kwame after nag after boobu ñu dugal ma si team bi ma fekk fa ñu mun a ñu am jom ñoom Jumay Seydi ñoom Jimpite jëm si yàlla dafa mu yéeréer Jimpite ñoom Sakho Babacar Sakho ñu réer ñi ñëpp ñoom Edouard Manga ak euh, ñoom Assane Kodiaby léet Assane Kodiaby ñi ñëpp fekka naa leen fa ñu nekk suma mag yu baax euh, ak. Euh, Laurent Bruce an ko dédié sa nekkin ak Kwame nga ñëw dugg si team bi fekk fa ndaanaan ñu ni mel ah, naka la meloon ñëpp yaatal ma waaye ñu tax xamoon na li ma ñoom xam nañ li na waaye lu nekkoon suma problème mooy ñuy teelu ma teelu na ma understand fu ma war a pass ball. ay da nga bëggoon ku la doon pass ball. suma suma ñoom su ma joxaan suma tànk yi ñu am leen bugga waaye soo ko sànnee rek ñoom dañ daan sànni man ma lay kon waaw. dañ ma bugga pour ma daw te man dama nekkoon play boo xam ne ah, daw dama ko daan def waaye dafa am time am am distance boo dee daw waaye ñoom pour ñoom. loolu leen gëmoon am nañ place yu de la poussé pour nga daw riis waaye dan dem ba xam ne man mënuma daw waaye man su ma joxee bool su ma passé su ma tànka ñoom dañ dee am leen bugga waaye teelu na ma understand ba pare dañ ma daan isi play ma wi nga wi nga foog nga mu nekk dawkat foog nga dawkat ak Kwame am nga ay trophies yoo win yu bare am naa trophées yu bëri foofu Kouami. nga jógee Kouamé. ma jógee Kouami. après si laa ñëw nag Port. man iya nga dem Port. Port euh, Sakho. Sakho lañ fa jile te Sakho man ak Sakho Baboucar Sakho nii la moom tam mu dem Port. fekk man moom dañ déggoo. Sakho goalkeeper. goalkeeper dañ déggoo waaw man defense laa daan play moom tam óoluwul woon kenn ku dul man. ku mu su ma su ma sigee sax dama war a pli si kanam Odobaas du confortable xam nga ko dama ko daan ñëw waxal ko ne ko ñu ma mun a pli defal lii defal waaye daf dee confus suy pli dee confus fi nekkuma si kanam lu tax loolu déggoo bi ma déggoo noonu moom dama ko daan kooval yu bari ba pare moom daf daan xam nan man su nekkee on position of the ball daf di xam moom fi mu nekk man dama day xam fi mu fi mu ma positionné moom suy génnee ma daf day xam ne suy génne poche bi rek maa ngi si poche maa ko koobal léegi dañ ko daan bit ko daan bit ma ne moom ma nekk si poche ma dem si poche bi koobal ko daf ne mais dama day hypnotise bool bi si waañ ay da mu kii ko mu mu dem koona uma ces ko génnee ko yooyu laa doon. dinañ dinañ dinañ ñëw si si si ports dinañ ñëw si ports dëggantaan waaye dafa dafa am loo xam ne dafa ma laaj la ko ñu bëri dañ dugal si football. Mm-hmm. Ah, dafa am lu leen dugal dañ am royukaay dugal si football. yow ndax boo doog boo nekkoon xale dafa am ñoroon seytaan. Mm-hmm. ñu inspire la ba nga dugal si football wala. bu nekkee am na kan. waaw dama daan inspire big players like ñoom Pelé Beckenbauer yàlla def nag. ma dem ba play ku bo beken bo in jamane dan ko far respect dan ko di julil beken dama na toog mom ni ni ma toogee yow no bokon ben team Cosmos boobu Pelé Pelé no te place ki mo fa jël moy Carlos Alberto bu Brazil, ko place am la jël am nga nit ki di nga am tools waye dang ko lay mooy dëkk bi. dinañ fa ñëw na ñëw ak Pods tuuti na ñëw si carrière bi tuuti Pods dem nga fa 70. Pods dem naa fa after bi ma jógee Kwame Sakho moo tax ma jógee fa. parce que dafa dem Pods mu ne dëgg dëgg su ma su ma su ma sañoon ngeen jëlee Owens Lamine te tey naa ne kooku soo na ko jëlee poste dina gën a baax gars yi ñëw to bi ko big problème after mu mahamne ma xam ne saaxo suma naataango la miinante nañu torop te partenaire na mu ñëw wax ma explainal ma dan indi suma kër pour rek ma dem ma ko ok booy te man su la waxee ko def naa ko def su ma waxee bii ko def rek naa ko def Né, não on voit não non de me potes. Não problema. Niti nit ki da nga sama sa kàddu soo nee lii dañ ko def não dañ ko def te Não ci football bi não noonu laa waxee su ma nee lii damaa bokk dama bokk dama sacrifice dama sacrifice não ma dul sacrifice não la ko dee teel não wax génne si biir man woor boobu dama dee não suma woor noonu laa demee Porsche nag. sa game. ak Ports. kañ la ak ban team la woon. Uh, Starlight Starlight. boobu fan la uh, box ba. <laughs> box ba. suma team yëpp trophée rek win rek. sa foos game ak Ports wax si tuuti naka la fa demoon nga ñëw Ports Ace. ñëw Ports Ace. play comme ni ma doon player man amoon boobu problème ci lu tax aw ma boobu problème man bi maa dugg si squad squatu Gambie boobu nawetaan laa jógee play naa first division de waaye gis ñu suma talent bi ma demee nag delluwaat Kwame déedéet bi ma delluwaatee ma play nawetaan Kéba Diop boobu fan la woon suma Serekunda Serekunda East waaw ñu play foofu saaxo tam ñu play ak moom mu nekk sunu gël cosaan ci bi ñu ngi koy wax cosaan foofu laa gën li ma play yëpp nekk to waa Banjul ñu ngi dem di seetaan di gis ñoom Thierno Touré Thierno Baara loo waaw Touré nekk ria léegi ti ñëpp waa Gambia Football Federation yi ñëpp a nga fa woon suma maaj bu nekk dañ dañ di seet parce que ñu ne nañ leen dem cosaan am na benn booy bu baax bu fa nekk mu ngi tudd Lamine Owens kaa leen ko dem seetaan jëm si yàlla ñoom Ousseynou Ndiaye ñoom ubbi ñëpp buubu dem fa mu play couche squad bi yëpp ñu dem gis ñoom Kaaba Diallo jëm si yàlla Kaaba Diallo MI mhm. ñëw gis moom mooy play ñu ne ma non kii kii ñu musuñu koo gis Gambie nawetaan boobu la ma jël yóbbu ma si squad ma pli mais da ku yàgg a pli si squad dama ñëw rek ànd ak ñoom nekk best player ñu dem Guinée Bissau tournament zone two best player ma jël ko suma force yi after dinañ gën a xuusi dinañ gën national team bi si kanam tuuti sports authority laa bëgg ñu ñu ñu ko den ñu gënal a ci si national team bi ñaara trophies nga winal sport. nga winal barena barena to ak gay moonu liidu ak si maas ak gay. waaw mass waaw. waaw mass ak gay mo fa ko ku forlu won si Gambian football. toro xam mom moom na time yoo am ne defender la won mom tam defender lon amul won caaxaan. moom moo fa nekkoon daf dee xam player man ba pare dama nekkoon nit koo man dama daan play pour bu eleven bi yëpp ma bokkal nit yi dama play di la kooval defender buy score goals dama daan score bariwut woon Gambia dama daan score te bokkoon nga si defender yi nga xamante ne nii every match ma score naka naka naka nga daan defee loolu ano dama daan fok nga am good positioning ba pare ngay def extra training dama daan def extra training manan ay saturday sunday sun training man dama def mo on on my own dama day dem si bi ba pare naaj bu tànga rek la dan train naaj bu tànga rek la dan train di di hamna yow suma coach li nga bëgg mooy pour ma satisfy la man loolu laa daan xoole pour ma satisfy suma coach te suma toogaan ba xool kuuj beneen kuuj bi nu mu dee kontaane ak kii non war a satisfy sa coach li mu la yaakaare jox ko ko mu jeex tak man noonu laa daan def su ma tëddaan sax maaj bi pléyoguma ko sax dam ko daan méditer ma di méditer action yi ma war a def Aki kii su ma la seetaanee na yoon naa xam naka laa la penetri, a ak naka la pénétrer noonu laa loolu yëpp dama ko daan méditer pare daw ma ragal mo moom mon titu tiitukaay nga prouve sa bopp ba léegi nga don ku national team bi sa force game national team lañ ci wax ban team la won ah, Senegal, Senegal. Sénégal yaa ngi fàttaliku at bi. non non <laughs> boobu nag jëluma ko. waaw te boobu nag Sénégal ak Gambie dafa daan neex. dafa daan bëri coow. coow. wax ñu si tuuti c'est first game ak Sénégal. ah first Sénégal nañ daan gis ne ñoom daan sona sunu loxo. stadium la woon wala. Ah? Ah, stadium. ak daka zone two la woon wala waaw ah, zone two zone two Bissau dan daan dañ day sono suñu loxo waaye ADN suñu euh, ñun dañ daan pilif am gum-gum yu ne ah maaj bi jeex na su dee ay secondes sax jeex foofu la ñu ne Sénégal daan pootoon nga ne dem bi gëm na géem bi jeex na ba pare Sénégal dafa amoon benn système bu na amee Gambien ne ko ñun discover am na position boo xam ne si field bi one touch la one touch one am na yoo xam ne tout la mooy su accès ba si booru eighteen si saakul si booru eighteen mhm. waaw foofu de Sénégal dañ di play one touch ñu gàm yeen di naanana bu lan mi day jeexal boo ñu ne injury gars yi def seen système boobu rek loolu la ñu dee sol waaye suñu génnee suñu loxo ñoom dool nuyu na ti kenn te ñun dañ leen dee damiñ seen first game ak Sénégal ñu win leen waaw wan na wan not lu meloon ci yéen loolu loo yëg yow waaw fiil naa ko fiil naa ko bu baax te ti Sénégal dañ yàkkamtoon sax te ref bi fuuf uuba tay boobu la gars yi amee góol mistake dafa dal dafa dal suñu benn player rek dugal lolo len may won waaye nyom after nyom, seen ma wino na sonn na naka la national team bi meloon seen jamono ya national team bi stajalo stadialo kosa ho lead ba Laos uh, alaji Ñaan Biiri alaji sar nam Dudu sen lead Dudu Seen naka la sen digante diggante ne ñun dañ Euh, famille ku nekk gis nga after squad bi da gis ni kii dafa dem team bi kii dem Hawks kii dem Real kii dem Walidat waaye yëpp daf dee nekk famille fu mu tasee si biir fil bi sax dañ di nekk mbokka waaye ni ngi pli nga nekk Real ma nekk Walidat dañ di dóor bu baax si biir fil bi waaye suñu ñëwee nekkaat boobu jamono amutoon xaalis bu bëri amutoon xaalis jom lan lan den foo daan amee daala pour play football daala léeg-léeg da dee am daala lu mot four season yaa nga am daala sometime da nga ko day ñaw benn daala mu laa woon ne jom sa foos daala boo play ñaara nga ko jëndee suma foos daala bi seer na waaw na di dan ma supply hmm. playé naa ko lu mot four season 451 muya kula ko supply uh, ah, kwan after six squad bi dan la supply beer boobu jamono boo daan boo leen daan tukki di dem di play football let's say outside Senegal wala feneen da nga di am allowance allowance bi su ma la ko sedduku ko ay 150 dala si kala tala seg tala waaw <laughs> su ñu la ko joxoon loo def yow. de non oh, xaalis la woon ba pare dañ daan jël sa allowance team si nga fa fekkaa ñoom seen allowance da ngaa foog ne sax mun na la la may jëndal la ba sa pañe fees te ñoom duñ ko yow bu ñu la joxee tala seg tala si day def. am foo da da ngaa fas sa job ba pare. won na so opponent do di amna fils yo koy won rek dafa xamne yo contane kontaanuloo yaa ngi gis foofu rek lu na la bit ci fil way soko ne yo mu won la kanam gu leer won ko kanam gu leer endem ci si fil bi dala seeg tara bi da ko relé ka fi wala dang ko yobale am yo am dang ko fi bi ma bin ma cho ma ngi taga suma jabar ma ngi mi jabar ngi nga foog nga discipline jëk sa bopa lolu lolu mo la jox katan bi pour nga mëna dem ci fil bi ba paré so demee ci fil bi li nga xalaat moy ni mo wara a suma coach mo wara suma ñepp ñu la yaakar ñu sa time bi ma do dé xalaat na ite man bi ma dama sax dafa bette ñu ya. bari man bi ma dama te dama na ba pare ma ñëwaat wéeraat jëlaat suma place ci squad xam ya, na lu lu lu lu lu ya yombul ya, ma wir toog na ay at ma Ai bi ma starté Ai may may trainal suma bopp ci dem ci fil bi on my own ci naaj bu na dama dan dem dem si yàlla Ousseynou Ndiaye mo mo sa beete si stadium ñu maani dama dee dem si bij bi hill bi éega wàcce lu ma ten times non stop ba pare ma dooraa dem si fiil bi am suma bool di tubal di kick si puus mu beeta ma ma ñëwaat jëlaat suma place si squad bi ñëwaat nekkaatay ma ba play ki ma gaañ mu maa daw ku la gaañ xeese odamtin ñu ngi koy xeese odamtin gaaneen xar su Vox ak national team. waaw. april eighty la gaañ. waaw ah. nu mu dafa double stroke. Kalaaj moo doon play defense time bu midfield lay play maa jox bool bi ne la bu joxee ma ko si direction nu half back waaye man bid naa half back waaye dafa ñëwal double stroke dafa mel moom dañ ko fita selain itu, Now football football nañ ko amga xam nga so ko di easy nama dan pli sa di smile ñu ne dama pli di leen mook ma leen di enjoy li maa def lan sa moment bi nga xamante ni, da nga feel proud kom sa carrière bés boobu mooy sa best moment ci national team bi doo ko fàtte mukk te boo ko boo ko fàttaliku rek nga dee kontaan. Ah, mooy bés bi ma suma force iya ma duga ci squad bi pare dem zone two ñu def ma fa best player mooy suma force ak ma duga ma dem wax nationalité ba pare ma jël display sax ak dëkk yu fa amee yëpp ak seen professionnel yëpp yëpp afta nag Sénégal jaaroon naa fa ñu bare dañ dee foog ne nee na Sénégal laa juddoo au lii waaye afta nag bi ma demee bay play ñu play Sénégal Sénégal ñu your skills yi do skill do Gambian skills no ko wa lu ko after bi ma demee a di play for contract play na for contract for three years four years ak ban team ak ak Sidek Sidek play na Sidek play na SAB nekk si sinu booba waaye bi ma gis manou coach bi ne ma no yow ni ma la gisee nii da ngaa play neuf mooy nine ma ko dindi man nag indi Gambia midfield laa leen ma dee play ak defense dina ma dindi skills yi nga amee soo dugalul sax play mu neuf play hmm, laa play nine suma fos match foo goals laa tax moo tax Sol Ndiaye nee na waaw loo def loo def baax na Solomon Lamine Owens loo def baax na loolu nak bobu jamono lu melon ci yow. ñepp ñu Lamine Owens. bobu na ah sun la am nga sun la ah jox na la man pour man jox na la benen ligi sun la tagee jox na la benen ligi bobu ñu ngi laa ñaax pour nga gëna def ciom man ñu la ko di gisee. bobu jamono bëri woon na play yu am jom. yu am jom sa am doole da nga gis ne passes dafa jóge tri passes rek góol boobu da nga gis positioning dafa bare wo place yu mun positioning ya positioning mo gëna important ci biir géej su ni nga position sa bob booba player national team bi ndam la ah, woon waaw dama na player national national team dem ko dan player ba pare Real mos me invite select ma box ba Darmaañ man maa leen score réel da ngaa gis boobu dañ daan select su team waree play beneen team daan la mun nañ select team after guy select réel match boobu da mun nañ ko play taalal leen boobu jëm si yàlla Paa Ndaw mi ngi mi ngi dunda time boobu place nga daan gis ñu am jom ñu am jom bu bëgg dara waaye xam nga dañ daan bugg a dara waaye xam nga foog nga wone foog nga wone sa jom li nga toog waxoon nga ne sa first game Gambia bu ñu la joxee best player moo nekk sa best moments best boo xamante ne ni doo ko mos a doo ko mos a faal parce que zone la woon ndax dafa am bés boo xamante ne ni boko na sa bési nahar ak national team bi bés boo xamante ni kontaanuloo woon dara te doo musa faté bés bobu non moy bés bi mo gënee am nahar moy bés bi mo gaañoo in Ghana iti maaj bu tan ko ñuy ni iti gaaneen ci yëpp dama sen seen fil pi yëpp dama dama leen man dama len tëjoon bu gaay jaar rek ñu pilen because dama waxat suba midfield play ba paré man ma ngi play 6 waye dama mu jégi comme 6 la sol ay dafa melni rural 10 ma nga solon 20 waye rural 10 la fu ñu play because lu gané né am anamu score score goal rek mon lolu ma gay fexel la ina fogg ñu gëné ci otherwise gana rafa ñak ay gay yaga na ma plata ñu son nañ ñëw Gambia tam fii man maa leen sonal man maa leen dugal two bulls <laughs> waa ji dem foofu gars yi pareel ba xaw tuuti ma jël seen bakkat waaye dama bi sax man tam xalaatuma ko woon xam nga nekkul woon naa gaañu waaye man dama di xalaat pour ma gaañu toog te nga ma gaañ ni ma soore rek jógaat ay boobu dox ma bi léegi bit naa ko ba pare si toj line bi dafa def bool bi si toj line bi rek ma flic boo moom kenn kataan ko jeexal naa moom waaye dafa ñëw ak double stroke dafa mel ne moom mu amoon na ay nga léena rek dafa tam sooxee fii waxuñ dafa am loo xam ne dafa manqué seen jamono woon am ngeen footballers yu yu mënoon a football footballers yi xamante ne nii amoon nañ Pastef amoon nañ gëm-gëm ne mun nañ koo def waaye lu desoon mooy qualify lan moo tax yéen seen jamono Gambie mënutoon a qualify pour African Cup of Nations lu ko daan lu ko daan waral mooy ne financial pour defar players jox player bi gëddaam loolu tam daf daan contribute a lot play bi su gisi moromu bi muy fiis kooku am lu lu ko satisfy yow amuloo play nga yow player foog nga gis ko si dañ dee dem ba dañ dee dem ni non kii du mobile na am million man ma am five dollars sax waaye du mobile waaye gis nga xalaat boobu soo ko demee si fil bi rek ak di en da ngaa exhaust yaa ngi gis. loolu moo nekkoon yéen seen problème. loolu loolu moo seen problème. am woon ay jaase yu ba daala ak allowance bu correct. am na daan toog sax gis ngay dem shopping sax. gis kuy jënd ay wëlis wëlisu ñaari wëlis téye di ñëw nga am téye mbuus xam nga loolu rek am na ñoo xam ne sax suma ma am na time boo xam ne man dama naan jéem a sax bàyyi fi suma xaalis suma doom ma bàyyi ko ma dem imtihaan tuuti rek laa dee demee because jaru ko balaa nga ko yaaxa fële yaaxa ko sa famille du ko jar su fekkoon ni lu bëri la waaw bu dëng daan gis non suñ defoon noonu kon Gambia sore woon serious Gambia sore lu lu gën a play part si la bokk lu gën a play part si la bokk su loolu amoon non am na kon ngi dugg si fii di jël sa tët taay gaa ngi dugg fii di ut place. sooy compare seen génération. ak génération bu ñu nekkee nii national team bi lan moo leen utalee. ok euh, lu leen utalee rek mooy ne financial ni leen dee defaree li ñu am. yéen amu leen ko woon. non ñu am ñoom lu loo xalaat ñoom dañ ko am loo xalaat dañ ko am peut-être time discipline bi dafa count nga gis ku play ba jeexal wala nga am carte man suma whole toujours red card laa mos a am te play naa over yu forty over forty tout red card laa mos a am bi against Real la fii box ba against Real tiri yàlla dañ ma suuf ñoom seen ñëri bi yëpp rek lañ ko tegat ne bu Lamine Moïse gin su Lamine Moïse doxalul rek daanu win maañ for ju Kalamba ju sab ju Kalamba ah, mosko dat gu <laughs> mosko dat te man te su Moïse pléwul su Moïse doxalul rek daanu win maañ ñi def ma seen bi yëpp suma yiri amna, dan mo suuf mo dis mo jegi ba last minute bi la commencé gis dama faul kena ba pare joogi ko ñu jogi, ma joogi te man waaw ni ka mo wari ak bena bi ma jël in Guinée sangdong moo koos sangdong don ko ba te guiné man masko coalesce eh, seen góor bi seen gini kay nan waroon win ay score ma equalize leen te defend la pli ma equalize free kick la naa moom moo tax ma score ref bi ref bu ñu jëna rek xam nga ñun ah Gambie amul dool ñi la ñoo am dool <laughs> jaay li gaay di wax rek jaay gi ok sang ñu kick ball bi sang deflect ko tii bu ñu téye play bi ñëw Guinéen bi ñëw kick ko referee bi bañ ko bañ ko fuuf sang tëdda ji xam nga ñu mit ref bi wanul sax que les red card ou yellow man nag si la taget waa ji ñëpp nekk si une groupe waa ji ne mu ne dafa wiire man tam ma wiire si gannaaw place man tam kare ko oo waxuma leen dafa ñëw rek ma mel ku koy romb rek mu mbëkk ko rek mu xum noonu la amee red card. bëgg ko xum bokkul ci football. waaye bi gisu ko referee bi gisu ko linesman bi gisu ko eh, spectateur <laughs> doo ko gis léegi am léegi nag boo doon play national team. am nga ne amoon nga temps pour play Germany Cosmos. Oh, waaw waaw waaw in in United States of America Pelé Pelé play na si team boobu Cosmos boobu ay talented players ñoo fa nekkoon ay talented players Germany non in America hmm. play na Béckenbauer several match San Francisco Tampa Bay Rhodes fu nekk laa dem play toog na ak Pelé Béckenbauer non Pelé fekkuma ko dafa fekk mu travel waaye business center bi fa laa daan dem Béckenbauer toog na ak moom joxoon na ma buggam bi yéen ñaar boo ngeen toogee soo leen toogee yéen ñaar loolu leen di waxtaan aha dafa man ne yow soo pliwul sax dama bugg nga plier ma a nekk ku force daf ma ko daan wax nii life nit la lu tax mu laa woo loolu because xam na li moom mun man moom ma dee plier maa ko dee attaqual doon attaque gars yi bëgguñu woon ma dem waaye nag am na yu bëri yoo xam ne kenn du ko wax li tax ma ñëw mooy yoo xam ne kenn du wax war ngaa jëli. lu tax nga jógee Amérique. waaw am na yoo xam ne kenn du ko day wax waaw ah, because ah, dafa am lu ma yóbbuwaale woon te waruma ko woon yóbbuwaale. dafa am lu mu yóbbaale waaw lu ma yóbbaale te waru ma ko woon yóbbaale waru sama suma bagage hmm. am na yoo xam ne dañ waaye xam nga ok bi mu fa demee ñoom ñëpp dañ ma apprécier waaw ma gis rek ne ma kii kii mbaadu pele maamam la wala doomu pele la dig ni ma daan traîner indi maa des bool ay nee non kii si famille Pélé bi la bokk <laughs> fekk ma suba néeg la ma waa ji jël waaye na ma Libéria tuntu foofu mu ñëw Guinée Bissau ñu ne ko ñëwal Gambia mu dooraa ñëw Gambia jël ma time bi mu maa yóbbu time boobu la la kii Razak Razak bu Ghana Delus, Abdul Razak donc fu ma jaar football motor. tax fu nekk travel football la tax loolu moom moo tax waaye xam nga ba léegi bàyyi football de mag si ku ngi itam sometime léegi ma am xale yu ndaw ma leen di traité because mon profession la xam naa si dara foog mu dimbal léeg ma dimbalee ñoo xam ne lu mu si dee laaj dara because maa ngi amee nit ñi jaama am wér gu yaram rek la. ni ngay jeexal si interview bi léegi tey si xalaat léegi si Gambian football mm. uh, du ñàkk ñu ngi jëmale si qualifiers. maybe bi moo nekk suñu first time ñu come close seen jamono nag amoon ngeen chance pour qualify last minute uh, ngeen ngeen miss out bi yoon nag Gambia ngi play Gabon waaye sa gisin sa xalaat ci Gambian football su ma gis uh, leenare rek uh, gis nga ko kotu fas da ko koy jox fas soo ko football dëgga invite ko invital vétérans yi ñu nga daan tagga xam nga ñii ñun suñu maas yi lan la ñu mun soo nu jógee tuuti sax daan ñëw nga invite ñu nit ki pour nga sagal ko foog nga dem fekk ko nga respect ko jox ko cëram xam nga yow li nga ut kii mun na ko jox ko cëram respect ko nga dem tooga moom waxtaan ak moom invite ko mu ñëw soo ko joxul dara sax loolu sax daf ko di motiver motivation bi waaye xam nga lii euh, Gambien bi xamuñu motivation xamuñu ko play bi foog nga vétéran bi foog nga dem si moom nga expliqué ko li mu mun mu ñëw di jàppale la without vétéran non play Gambien du mu no so da nga bëgg a bokk si selebe national team bi. coaches bi. non ñu ngeen de waxuma la sax nga si eh, national team bi déedéet pour nga leen di yóbbu ñuy lecture ñuy xool di la dimbale. Sénégal loolu lañ def Aliou Cissé Aliou Cissé dafa dëgg xel mi dafa dëgg vétéran yi ñoo nekk si gannaaw man dama day wax ak. vétéran Sénégal ñoom Roger Mendy Amadou Diop kenoom ñii ñëpp suma xarit la ñoom xam nan ma dee waxtaan ak ñoom bu baax de xoolante ñoom ñoo nekk si gannaaw Aliou Cissé waaye doo ko yëg ko yëg daf leen Aliou Cissé daf leen dee déglu daf leen dee déglu bu baax waaye fii nag yow ah yow xam man xam naa li nga mun gis na la setan na la na la invite ci pet ba jël sa idea jël idea biiri jël idea ki jël idea ki nga tek ba focus nga tek nak nga xalaat man day su man loolu lay def iti man sa li li ñu jox ma tiim amé na fi tiim kooj na fi tiim te ko tiim bu ma ko da ngaa perform en force bi ni jël ligue maa leen ko gay am wax dox sama diggante ñom man len ah ya, that's fine ma génn ñu joxoti taw titaaw jël lig bi ñu ñëwee dañ ko ni ah yow titaaw lo sax nga jël lig mu len Lamine ci mo liggey tim bi am len discipline ma leen di njëkkaa discipline ñi ni yaakaar ñi ñu ko noon ci tim bi dama len da punish len discipline len ñu xam nit yi sooy defar team buy ut friends dafa ñëpp equal loolu moo fi nekk yu taawut loolu suñuy xeet o oh, du jël kii du ma jël kii déedéet da nga yàqal young generation waaye fii talented players ñoo fi fees waaye di nga jël coach boo xam ne am na coach yoo xam ne ñu ngi si dëkk bi mu noon def dugal team waaye du ñu mun a produire pour kii xam nga lu yow dama laa aaye lii mister waaye lii nga faa def waaye duma la aaye lii ba pare bàyyi ko noonu empty dama laa ne bàyyi lii buy def lii waaye defal lii replace ko si lii play bi dafa correct te fourth line mun ko ko jëlee it defender man nekk naa defender ñëw nekk fourth best fourth line gis ko midfield play mun nga ko def foo play bi at any time mun nga ko change man leen rek la play goal keeper any post tam ko di play waaye which is noonu la mën mel fi ko tënkee mooy Gambia ngi waajal Gabon very important game si qualifying process bi lan ngay yedda team bi looy advice team waaw leen rek na place tam man place yi laa lay wax saytu place ko euh, soo amee tim bu mel noonu te ñëpp nga jàppe leen bi focusal fifty fifty teel ñëpp fifty fifty pare nga strict ba pare place seen boppa nan wax nan pare pour sacrifice seen dëkka nan xool national flag mu du seet individual play du def asettiwi illeyɓe nayi kuɗe sosone johal hundred percent soso ɗinga guina ɗin supplice ay mege sone ñise ñi sebbiti kamin yangla déglu ñula seetaan jox leen lunu lunu mun a tiitaroo ëllëg jom suñ lay win sax nañ la win ci jom waaye nga mun lii ba ñu taana la yóbbu la ngay disappoint waaye li ma leen di ñaan rek am na good place place am na fi bu baax am na bu baax indi Gambie yes kañ non waaye nag dañoo xam ne mënuñu ah, mën nañ la gis nga play good play nga waaye soo ñëwee dañ laa ne ah, defal lii defal lii lan la ñoom ñoo bàyyi lan la wax la at that moment su lii arrangé lii nga war a def nga teel ko xam loolu yëpp da nga ko war am na plie soo xam ne xamul rules and regulation rek plie bii si plie dafa war a xam rules and regulation référé bi bi laa la wax de xam nga yow plie waaw boobu na ko war a xam si film plie euh, référé bi at any time mun nga ko dicté si action loolu daf di am <laughs> jërëjëf Lamine Owens moom moo nekkoon suñ gante ji Uh, si live after the final whistle am nañ kontaante lool pour dalal la si KG5 uh, fii si Banjul mu nekkoon li nga xamante ne nii mooy interview bi ñu amoon ak moom uh, fii si Chronicle jërëjëf. jërëjëf waay kontaan thank you so